asalaamaaleykum mbokki waa Thiès ñu ngi leen di nuyu ku tekk ci turam santam di jiital nuyoo bi monsieur le maire bu commune Thiès Nord monsieur le la Lamine Diallo di jël nuyoo bi di ko tegaat ci loxoom mu tegal ñu ko ci biir Thiès commune yëpp ñooy dellu si ci suñu septième édition bébé de l'année bu ñu nee bébé de l'année bi nag defe naa ni waa Thiès miin nuñ ko ci ñun léegi ba looloo tax ñu dellu siwaat war ko defar ni ñu ko doon defee mais dina am tuuti différence bu ci am ndax feebar bi am bi moo tax dinañ ko dinañ leen leeralal bi yoon nan lañ koy organiser ba nga xam ne gan gi war a ñëw dinañ ko jox ay kadoom comme moom mooy gan gi jëkk a gane ci année bu bees bii ñu war a dugg muy 2021 kadoom euh, buñ ko koy jox dina am changement tuuti ndax feebar bi ñëw ci àddina bi looloo waral changement bi xam naa ni madame la maire Aïda Gueye dina ci dugg léegi expliquer ko euh, poste de santé yi nga xam ni ñooy doon suñu correspondant su boobaa nan lañ ñuy mën a accueillir gan gi minute bu ñuy ñëw yan mesure lu ñuy war a mën a jël ba nga xam ne du am benn euh, lépp lu ci état di bañ rek ñun duñ ko ciy bañ mais suñu gan gi moom incha allah duñ ko bëgg a gàttandu bu si yàlla àndee ma jël kàddu gi jox ko madame la maire Mantoulaye Diouf nga xam mooy coordinateur mooy euh, rapporteur bu bi mu gën leen leeralal ñu ñu jagleel madame la maire. jërëjëf euh, madame la maire l'honorable conseillère euh, Kadia Mal la présidente de la commission fête et cérémonie de la commune de Thiès Nord euh, man ma tudd Ajaratu Manatoulaye Diouf rapporteur de la commission fête et cérémonie de la commune de Thiès Nord nekk aussi conseillère municipale ñu ñëw nag ci bés di nuyu nag ak di remercier wa prestige bu baax a baax eh, njëkke ko ci DG bi bi nga xamé né ci suñu parrain yi la bok parce que depuis eh, trois ans eh, dañ koy def parrain mu ci def nak lu mucc ayib kon le président Pape Doumbouya ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax la wax né encore tamit euh, defaat nañ ko parrain ci édition bi encore muy suñu septième édition ki nga xamee ni nag c'est le parrain d'honneur c'est le maire de la commune de Thiès Nord monsieur le maire Lamine Diallo moom mooy suñu parrain d'honneur euh, ñu teg ci suñu frère Mortala Kandji mi nga xamee c'est un conseiller municipal dans la commune de Thiès Nord moom aussi ci parrain yi la bokk ñu jëlaat suñu beneen responsable boo xamee ne Bakary muy servir Mali koko aussi ci parrain la bok. Euh, waaye nag du ñu remercier du wax parrain yi dañuy aussi ci ñi nga xamee bu bés ba ñoom ci boppam dañuy jël seen alal di ko ci def depuis sept ans Le mel au champ, le mel tous les commerçants du marché central ñoo xamee ne dem nañ fa ay invitation euh, lu nous Prestige dalal bi Presta euh, na euh, madame Mané Serigne Modou commerçant Sophie commerçante Sophie Mbaye tamit wax bis bi intercontinental de négoce monsieur Papis moom tamit day jàpp ci bés bu baax a baax euh, Ibra Badiane moom tamit tontooy Ibra aussi da ciy jàpp bu baax a baax kon bés bi daal wax dëgg yàlla su bis bu ñëwee moom kado yi moom vraiment kenn ku ci ne dañ ci def sa doole ñëw ak présence ñu def une forte délégation mais nag comme li ko madame le maire tànk jaa waxee rek parce que ren moom. Euh, dina xawa doy waar par rapport ak maladie bi nga xamé né mo lëmbee aduna motax dal benen façon len ci ñëwé xamna nak mom en tant que présidente dina fi ñëw merci ñu jël kàddu gi jox ko la vice-présidente de la commission madame la maire ay Gueye. jërëjëf madame la maire madame la maire Mantou maa ngi lay nuyu bu baax di remercier bu baax. remercier madame la maire Awa <coughs> ah, di delluwaat rek li ngeen wax mooy li ñuy delluwaat di di muy sunu septième édition bébé de l'année ah ñu woo waa Thiès yëpp bàyyiwuñu kenn surtout nag waa zone nord bàyyiwuñu kenn poste santé yëpp fukki poste santé yi ak benn yëpp ñu leen di woo. heure ku ci nekk rek daan la yóbbu sa enveloppe pour bu jox la sa numéro pour bu heure bi jotee rek boo nga wono lépp ñu ngi leen di xaar di leen déglu ah di ci boole nag di leen gën a ñaax ci li nga xam ne mooy jàngoro ji nga xam ni mu ngi fi nekk ci sunu dëkk nekk ci sunu réew ah sunu ministre bi di bañ daje bu bari beeg yooyu léegi ñu bëggoon rek bu boobaa incha allah. daanu xool ni ñuy mën a mobilisation bi bañ a bari ñu yemale wax ci kii bi rek ba ñu mën ci dugg daal ci bisimilah rahmaani rahim te egg si alhamdulilahi rabil alamin di woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn sensibilisation bi nag mooy li ñuy bañ rek bañ nit ñi ah def ko comme ni ñu ko daan def daal loolu léegi yooyu yëpp dañ koy wàññi incha allah bu boobaa ñu xool rek ñu koy yemalee ci nit rek ñu programmer ko incha allah waaw kay merci beaucoup. waaw rafet lu waat rek bu baax euh, li madam la maire euh, Aïda Gueye wax ak li madam la maire Mantoulaye Diouf wax li ñu wax li noonu rek lay demee mooy euh, jour boobu ñun dinañ gën a jël ay mesures yi nga xam ni lépp lu ci état di bañ rek ñu ne duñ ko ciy bañ bu baax a baax incha allah bu ñu fa eggee benn mbumbaay du ci am gan gi la ñuy jox ay kadoom te dinañ ko ko dinañ ko ko jox ak nu mu gën a dalee ak nu mu gën a rafetee incha allah. di leen remercier bu baax di remercier nak le parrain euh, monsieur le maire di remercier aussi pap dumbuya mi nga xamni mo ñu dalal te chaque année mu def ci dolem émission bi daf ñukoy koy enregistrer bu ko défé ñun day génn lu bari ko bo xolé dat bi mako def tay ba 31 décembre nga xamni kon amna na ci bës bi kon nak euh, yalla bu yalla tas yaakar li ñu dënmal yenn ñu ci yalla may ndam ko raw suñu jort di gërëm ñëpp di sante ñëpp di ñaan yàlla yenn ñu fa yàlla àggale jàmm